وإنني باسم مولانا العلي الأزلي أبدأ نظمي هذا تيكونيان ممثل أحكي سيد شيخ أم هاني Cheikh El Hadj Omar ñu ngi jéggalu nag xam naa ne ci programme ngeen jóge te ci programme ngeen di waaj xëy na ak lu mën a doon it ci tukki nga jógee te as as safaru xit atun min al adabi loolu la yonent bi sallallahu alayhi wax nee na tukki dogit la ci mbugal yonent bee ko wax de nee na tukki dogit la ci mbugal ndax loo bari bari xaalis boo génnee sa kër rek tumaranke ndax attaaya ji lax booy bi daan attaayaal ci bunti kër gi sax boo génnee rek di nga yëg ne attaaya boobu manqué na ak do ak attaaya boo mën a am ci biti nag di nga yëg ne boobu moo dàq bi nga am ci biti ah, rawati nag nga tukki ñibbisi kooku moom dañuy bàyyi rek sama sama doom moom tabaarkàlla tabaarkàlla tabaarkàlla <laughs> waaye bég nañu nag bég nañu yàlla xam na ko ñun buñ ko gisee dañuy bég ñaari yoon waaw ñaari yoon ndax léeg nañ ne lu yaayam daan dox mu nga cay sonn yëg nañ ne lu yaayam daan taxawe mu nga cey sonn kon nag yàlla na nga ko sut fan fuuf waaye yàlla na nga dese barkeem yàlla bu la ci kenn ëppale ci sa maam Seydi Aboubacar yàlla bu la kenn ëppale ci sa maam Seydul Haj Malik e, loolu yàlla defal na la ko e, jamaa baynahuma kuy sa maam Serigne la may waxoon sa papa Serigne Moustapha ca Cissé ca Grand Théâtre xam naa lañ ni kii dafa màndi door di wax ndax ku ñemee waxee noonu ci kanamu sëriñ Moustapha bariwul waaye man xam nga dara dafa dara daf maa jaaxalu te li may wax bu ma ko gëmee rek sawa yi ci des yépp mën naa ko ki ma ne ko góor gi sëriñ Moustapha mu ne am ma ne ko génnal ci biti yow tëju du sa cër danga war a jubbanti jaam ñi jubbanti taalibe yi orienté leen wax ak ñoom te yow ñépp nga saf ñépp safoo la boo tëjee ci biir di nga rey ñu dul jeex génnal ci biti ma ne ko yow tëju du sa cër de génnal ci biti wax ak jaami yàlla yi dañ la soxla te réew mii buñ ci génnee li nga ci am dara du ci des ma ne ko beneen bi ci des nag mooy alaaji Ahmad dem moo jur sa ndey sëriñ kër Si jur sa baay lii soo koon di taxawal mënuñu ko sax bu dul yow ma bëgg nga garantil ma ne saa yu amatee di nga ñëw toog mu ne wallaahi nangu naa ko loolu maa ko may waa Sokone bu dul woon nag man duñ ko am de ah parce que nit nit ku baax da koy ñaan ci kanami gor yi te la koy ñaan da nga lay wóor ne am na ko faw mu jox la ko ah boobaak léegi de mu ngi mu ngi génn wax dëgg yàlla te loolu lañ ci bëgg yàlla def entre laa def ba waxtaan bi jeexee may yolleeku di ñibbi ndekete gaayam yi gën a dangereux ci kaw suuf benn garde bi daf man téye sama mbubb ne ma sëriñ bi nee na nga xaar ko ma di ko cat bëtu mu mel ni ku dem na le ma ne poset di génn rek keneen ki kar ma ne bi nee na nga xaar ko ah, mbaa man jàmm laa fi wax rekk ndeysaan ma bàyyi ba kooku feex parce que boobu sëriñ baa ngi wax ak ministre bi Abdou Aziz Diop boobu moom la doon waxal may génn ci bunt bi rek keneen ka ca bunt ba ne ma sëriñ bi nee na nga taxaw ci buntu otoom xaar ko ma ne kon pexe jeex na ma dem ci buntu oto ba taxaw xaar ko mu ñëw ne nikk ci sama loxo ubbi oto bi ndekete am na soxna su toog ca buntu ba nale moom sëriñ Moustapha mu toog ci digg bi ne ma Chérif toogal ma toog ci bunt bi bi ci des moom sëriñ Moustapha mu toog ci digg bi ne ma du dara danga ma bàyyi te waroo wa ma boy dama la gëj a gis te dama bëgg ñuy waxtaan mag yow ma ne ko jéggal ma boo amee sa nijaay doo ko nemmeeku doo ko xool ndax ah, ci sama wàllu ndey sama nijaay ma ne ko kon nag maa tooñ rek may jéggulu mu ne ma dinaa wax Moussa Gueye fan yi mu fexe ñu gisee ndikiti am fuul baa ngi ci biti am na ci jigéen ñoo xam ne ñu ngay daanu gàngari gàngari xam nga gàngari caddi caddi comme ku yor rab man bi ma génnee cooto bi tuuti ñu lekk ma bu ma xale yi rawatu rawalewuloon dañ may lekk benn xale bu jigéen da nga naan wuy sama ndey moo toogoon ak sëriñ Moustapha ci biir oto bi ma ne ko kon i bu ko sëñ Moustapha nu yowoon mu seey bi nga xam loolu li ma ciy jàngale mooy cofeel ëmbal nit cofeel boo yegg foo xam ne daf lay yéem moo tax ma ne ko nag sëriñ bi cofeel bi nit ñi am ci yow tëju waratu la boo tëjoo rey ñu bari fa tabaarakallaahu moo tax démb ci xadara bi ma waxaat ko ma ne yal na yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko fi eh, sagu diine ji la sagu tarixa bi la sagu mbokk gi la fa tabarakallahu ahsanul xaaliqin waaye sagu kër Seydul Xaaji Malik la dama koy wax toujours wax naa ko ca Cerno Bari ca boggal boobu sëñ Abdou Karim Mbàkke yi moo yebal soxnaam ma jël parole comme nii Faatu Bintu Puy la yebal keroog ma ne Sénégal neexul waxee waaye ñaari nit doo nga fi am taalibe ñi ci des ñëpp sympathisant lañ am ma ne leen mooy Serigne Moustapha Sy responsable moral moustarchidina wal moustarchidat ak sëñ Abdou Karim Mbacke ñii rek am taalibe ñi ci des ñëpp ay sympathisant lañ am parce que ñi ci des ñëpp ker bu la sa sëriñ opposé nga ne non marabu dootoo wax sëriñ marabu marabu dafa foog ne moo ma gën a yeewu kon yal na yàlla dolli sutura eh, mbokk yi moo tax fu ngeen bëgg a yeewi ko rek ñun waruñu leen a yeewi ndax yéenay suñu kilifa waaye fu ngeen bëgg a yeewi ko rek ndax itte yi may nañ leen rek ci seen ci seen ndigal rek ndax tey jii boo noon shérif yemale fi waxtaan wi wa sharafil quran soxna astu ñàkk fii laa koy yemale dem sama yoon ndax nit day am kilifa te man kër Seydi Hadj li ñooy sama kilifa loolu la yàlla dogal ndax Cheikh Al Hadj Aziz man damay wax ne li ma am santul ay dara si la sant boo ci génnee si jeex na takk li ma am santul ay dara si la sant nekk di dox li ma taxawal benn shérif mënu ko sama baat ni poto ku mën na def li ma fi taxawal ak li ma fi def benn shérif mënu ko billaahi wallaahi tallaahi kon su ma ko mënee ki tax ma mën ko jaraw lakk mooy Cheikh Al Hadj Aziz kooku nag fu njabootam nekk jaamam laa ba ba muy dem ma door nag jóg seet kan lay noggatu ku mel ni Sidi Maxtar Kunte def ko jàmm mu jeex lii mooy dëkk nit suuf bu sutaatee dañ ko jal man ki ma jal mooy alaaji Abdul Aziz kon njobootu alaaji Abdul Aziz mooy njobootu Seydul Xaaji Malik man ku sant si xàmmeewuma ci ka ka nekk ca kaw di xalifa bi ba ci ki nekk ci suuf mujj juddu sant si doonte ndeyam moo sant si te moom santul si boole naa ko ca ñépp orma bi ma yoreel Seydul Xaaji Malik laa leen yoreel te loolu lay doxee nag ba may sàngoo suuf dara du ko dindi ila al Baba واو سخرتك ويفلو بالجمع

maam sëñ Babacar nee na mahwatu yu fi ida ataw ziyaratan rawdu rasuli wa xajja baytil xaakimi ki may sayduna Muhammadu Rasulullahi xool sëñ Chérif nee na ummu ayni jigéenu Seyni Ali la waaye xoolal soxna Assu yow ndeysaan jigéenu Chérif Ibrahima Aïdara min ubbi man lam uraqihi wa barusiya qilil ayaami yahoolu ki may Seydunaa محمد رسول الله كما يقلي عجاب المعذب وانزل تبر ولا تبقيا عن قيفه مستحورا كما يفكر به معنى تعراه منزلا كما يعاقب عباد الله المنزلا شرع كما ينبيه اهل الجنان مبوعيا شاء محمد صلى الله عليه وسلم يمجل مدوم لو كلام معلوم مع na soxna moo ko xettali dana ko yaa xettali sayid waaye li wolof di wax wolof nee na wolof nee na jege ataayakat jege xol baa ko gën dama ko doon siis bañ mu wéy ndaaye ndekete borom yëf yi moo ko gën a soxla <laughs> moo tax ma yónni ko dama ko kobos ne ko kaay ma yónni la barab sàng waaye rek ndekete boobu borom borom yëf yee ma ko gën a soxla moo tax olof yi ne jege attaayakat jege xol baa ko gën ndax boo moytuwul jottalil diw rek ca ngay yem kon xaaju cheikh jërëjëf Moustapha yéen ñëpp jërë ngeen jëf ah eh, sëriñ saa nag mënuma ko fay ndax nit koo xam ne fu toog toogaaleel la géew bu dem yóbbaale la kooku mënatoo ko fay tabaarakallaahu xaaji euh, sàmba benn ligne rek laay jël ñu tëj ko jox sang yi mooy li may yonent bi lu mu am démb rek maa ngi koy wax ay mbokk ma ne leen réew mi li ñu baax le kenn ku nekk bu fekkoon ne sëriñ bi muy tiitaroo rey na ko ba mu jeex billaahi police sax du amati wala polis bu amee day figire nii rek waaye du def liggéeyam dama ne démb maa ngi koy wax ay mbokk biñ jullee jumaa ca Sacré Cœur ma ne leen réew mii ñi ñu baaxle te kenn ku nekk ci ñun di tiitaroo ki mu baaxle su fekkoon ñi ñu baax le roy nañ leen polis dootul am wala suy amit dañ ko fiy teg mu figuré nii rek waaye du def liggéeyam ndax kenn ku nekk ci ñun ki nga gëm ba ku ko tudd laal sa xol bu dee lu neex nga làmb sa poos jox ko bu dee lu naqari nga antan antan jaayanteeg sa bakkan joxe ko kooku boo ko royoon topp ay directive am police bii gendarmerie bii dana tëj dëgg walla du dëgg ñun ñi ñuy tiitaroo ñépp a baax waaye tey koo ne baaxoo mu mer te mbaax tumuranke na mbaax dafa tumaranke xam nga baax du sañse rek ñu laaj la xaalis nga joxe ñu taggal la si say maam nga joxe ñu wax la lu rafet nga wax lu rafet delloo loolu du mbaax mbaax moo di ku jëflanteek yow yëg ne baax nga ku wax yow yëg ne baax nga ku la jox gannaaw yëg ne baax nga loolu mooy mbaax te suñ mag ñi noonu lañ fi nekkee woon ma yegg ceeg ñoom ba démb ma ne leen dinaa ko ñeme wax ndax mooy woy wi gën a siiw ci woyu tiijaan yi daanaka mbay yaa ñu doy ba leen ko wéy ma ne leen mbay fexe na ba doy ñépp ci góor góorgóorloom ak liggéeyam ak gëm sëriñ euh, Seydul Xaaji Malik mi baayam topp sunnaas yonent bi di yegg na ca ba doy ñépp unanimité waaye yow mi naan mbay yaa ñu doy est-ce que bu mbay ñëwoon dana bokk ci ñi ngay doy loo ñi muy doyloo loo yow c'est ça problème te bu mbay ñëwul it ba bokk boole la ci ñi muy doyloo bàyyil xel ne di nga fekki mbay est-ce que boo fekkee mbay ci sa comportement bii nga amee est-ce mbay dana la nawloo loolu mooy wax bi walakum fi rasulillahi uswatun xasana boobu moom laa doon tas ñun joti wuñ ci yonant bi ba mën ko roy waaye ñi ñu am yonant bi lañ joti kon nañ roy ñun ñi ñu am jeex na ñun joti wuñ ci yonent bi wax ju bari rek moo fi ne waaye joti ci yonent bi ndax xamuñ wan yoon la ñuy jaar pour yegg ci moom waaye mag ñu baax ñi ñu am Seydul Haaji Malick maam borom Touba Cheikh na Cheikh Saad bu maam Limaamu Laay Bu Kunta Njaasaan mag ñii liggéeyal nañ yàlla liggéeyal yonent bi ba yonent bi gërëm leen suñ toppee ci seen kaw mel nañ ni ku topp yonent bi wa atiullaha wa rasulahu wa amri minkum fa in tanazatum fi cheyin fa rudduhu ila allahi wa rasul kon nañ jéem a soppeekuwaat Sénégal France du ñëw di ko defar ñun ñoo mën a defar senegal Amérique du ñëw di defar Sénégal Angleterre du ñëw di defar Sénégal sénégalais yi ñooy defar Sénégal waaye réew kenn du ko defar ci xaalis comportement la xoolal li xaaj ma si la kan wax léegi ki taxaw ba ci taatu pale di saw wax naa ko fi ca at yële 2014 billahi wallahi tallahi maa dem France Champs-Élysées xam ngeen Champs-Élysées ah, ab jardin bu den rek moom maa gis ku taxaw di colal ma ne billahi sénégalais la ndax xaftaan bi mu sol moo tax ma xam ne sénégalais la billahi wallahi tallahi amul incité wu ma sax dama wàccee vitre bi ne gars yi Mansour Cissé laaj leen Mansour Cissé ñoo ànd ak Lamine Dieye ma ne leen bari salaatul faatihi sénégalais la couture couture accoutrement bi mu sol rek xam nga sénégalais neex naa xam ne boo malien yi dañuy sol li ñuy sol waaye boo xoolee seen cëlmaay yi di nga xam ne kii malien la ma ne lii sénégalais rek ko ñeme ñëw ba France Champs-Élysées gis colal ci taatu garab yi lii sénégal rek sénégalais rek ko ko ñeme ndax ca ndakaaru la ko tàmmee door a ñëw mais c'est c'est malheureux loolu est-ce que président Macky Sall wala lay Ablaye Wade mooy dem di corriger kooku indi leen yéen député yi ay loi yu sévère te ñu respecté ko appliqué ko mooy tax réew mi doxan ah. su dul loolu réew mi Macky Sall mënu ci dara téeméeri junni président Macky Sall bu ñu fi ñëwoon du tax mi réew mi avancé maître parce que jikko yi moo baaxul réew yi avancé yépp jikkoo leen avancé loo yonanti bii ñuy waxtaane jikko la ko yàlla tagge say tudd na ay maamam ba ci adnaan seydul xaaji malik moo wax ne ku yem ci adnaan yem fa ndax yonanti bee ko waxoon ne kuy tagg samay maam ba ci adnaan yem fa ñu ne ko lu tax mu ne damay bañ nga saaraan te xamoo samay maam nga jaawale leen Maodo ci mandoom mu yem foofu ne fii la yonent bi yem loo neñ fa yem waaye mel ni soxna Astu Juuf rek man xaw ma lu ma ne soxna sax mel ni Astou Diouf olay ñu ngi lay nuyu bu baax yàlla moom mii nga xam ne yàlla dimbalewu ko bu ko yàlla fi xëy na sax am na man am na sowetaas ndax mu ngi ànd ak soxna Asi moom xam naa ne yàlla nar na koo dimbale fexeel nag ba sa jikko ju ñaaw ji bul bàyyi soxna Asi ker boo ko bàyyee rek mooy sa jaan na ma taxaw na <laughs> du yaane ma tagg la pour nga jox ma dara maa ngi lay tagg ana ba ñas Badou Niass mu ngi fi moom la yónni de ne ko neel shérif mu tagg ma comme sama doomu nijaay la nee na naa ko tagg na ma naa ko tagg ndax mu defal ma dara maa ngi lay tagg ah, waaw lii ci tagg yi la bokk ma jox leen benn anecdote Jóom Njaay mii di jottali dinaa tudd turam dafa am ku ko tooñ kooka nag du ma tudd turam wax ko wax bu ko naqari ci biir zawiya bii booba laa jab doo fa woote masjidu rasol bi xam naa ne Jóob Njaay xamul nu mu koy def rek mu xëcc nopp bi rek xam naa ne lu bon la ko wax te waa ji nag du gis silmaxa mu jékki-jékki ne eh Jóob man ngay saaga tant eh, jàkka jéeb ne xeram ala jab ne ko Jóob lu Jóob lu tax nga di ko saaga lu tax nga di ko saaga baalu ko ak Jóob ne ko diw baal ma àq xam nga ñëpp a koy dégg ci lay baal ma ak ñëpp a koy dégg mu ne ko waa baal naa la yób yóotiwaat nopp ba rek yéeg fa gën a ñaaw rek mu waat man ngay saaga ala jëm ne ko yow it jeex nga nag <laughs> xam nga saaga wu njëkk wala dégg ala jëm ne ko yow it buñ la nee wax na la ci kanam yi ñëpp baal ma baal nga ko jeex na loo ciy waxaat mu ne ko daf ma saaga saagawaat weneen mu ne ko kenn déggu ko waaye xam nga léeg-léeg mbir yegg foo xam ne rek daanaka aw saaga nga cey teg rek waaw tabaar doonte nag saaga baaxul ndax laa yuhibbu llaahu al-jahra bi suu'i min al-qawli illaa man zulim saaga baaxul baaxul eh, gis nga mika muqaddima lay def yonent bi ñun ñépp bëgg nañ ko Sénégal gisuma ku fi bëggul rasulullah moo waral tant bi waaye li Seydil Hadj Malick wéy doy na sëkk man Maodo gëmuma cofeel bu àndul ak jëf gëwuma ko loolu la Maodo jëf mu ne waaye sama jëfit li muy rëy rëy rëy bés penc yaakaaruma ca dara waaye cofeel bi ma am ci yonent bi doy na ma waaye mu ne cofeel nag day ànd ak jëf di roy nit ki bëgg nit ki te royoo ko mbëggeel gi des na yéen ñii bëgg président de la république fu mu leen yendal fa ngeen di yendu fu mu leen fanaanal fa ngeen di fanaan directive yu mu leen jox yooyu ngeen di def wala déet parce que yéen a ngi ci parti bi te xam ngeen ne njëriñal parti bi mooy seen njëriñ kon lu mu leen wax da ngeen koy def lu mu leen digal da ngeen koy topp wa kay fa nag naka lañ ne bëgg nañ yonent bi te lim ñu bëggal duñ ko def mënul nekk contexte yi lu tax ñu di ko changé bu dee àddina nga d'accord waaye bu dee ci yàlla doo d'accord en ah, cheikh mënul nekk amul kenn ku ñemee opposé chef am fii amut ñaar rek ay am ñu sanctionné la wala ñu dàq la wala de taxaw opposé sa chef kenn ni ñemewu ko nag lu tax ñu di ko def ci diini ji yàlla ne walla lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarjullaha wal yawmil axir yàlla ne am ngeen roy waay wu rafet moo di sallallahu alayhi wa ci ku yaakaar te gëm ne bés penc dana am te yaakaar yàlla kon mbir mi nañ ko seetaan moo tax maa ngi leen di ñaan bu leen sonal seen bopp vous les députés ministre les même le président de la république bu mu sonal boppam xam nga lu tax ku mënta redressé jikkoy réew mii billaahi mënoo defar Sénégal billaahi wal kitaabi maa leen ko wax am na nag lu ma gis lu ma neex démb ak tey xaw ma dina continuer walla déet dama jaar ci autoroute à bi dugg ci barki démb laa ko njëkk def dugg ci fii carte laa yor ndekete sama carte la ca des bariwul heureusement mën na maa jàllale waa ji jox ma benn bouquin comme ni ma Serigne Cheikh yónnee lii ne ma liir ko à partir de xaw ma lan mars ku jaar fii te sa fekk sa fekk sa carte jeex cinq mille ngay fay door a jëndaat carte ma ne ko c'est très bien yet wi ci man na dal mu ne ma ne ko c'est très bien je suis entièrement d'accord parce que am na ñu dul am carte di fi jaar di tardeel ñi am carte. doonte man sama carte dafa jeex waa ji xoolaat ma ma ne ko li ma wax mooy dëgg def naa ko du tee ma sanctionné sama bopp man warumaa xool gendarme bu ma sanctionné maa war a njëkk a sanctionné sama bopp beneen bi démb la bi may ñëw xadratul juma gendarme bi dafa collecté ay ni koy waxee ti permis ba loxo bi fees del ndekete léegi ku ñëw génn ndax yàkkamti dañuy jël sa permis ba pare ne la continuer la dootoo jàdd de da ngay continuer ba pare ñu jël sa permis nga fay 6000 francs boo xam ne neexle amu ci loolu nag yal na sax yooyu na ngeen leen fexe ba buñ mos korompo réew li koy defar mooy loi yi na sévère ñu appliquer ko application bi nag buñ ci xool kii député la même yow vous le boo ko defee nañ la sanctionner en tant que député sëriñ bi bu ko defee en tant que si ay dara mbàkke nañ ko sanctionné parce que moo war a njëkk wone yoon lii bu amul ci réew mi barki salaatul faati yi mënu leen koo defal loi na ci ñëpp yem suñ ci yematul rek tuddul loi suñ ci yematul rek tuddul loi yonent bi bi muy dem sallallahu alayhi wa sallam ñim fi bàyyi buñ taxawuloon gannaawam soxna as tuuti taxawal lii déet Seydina Aboubacar bi mu njëkkee toog cocc ci xilaafa gi premier bés deuxième bés la woote réunion ñépp daje ci jàkka ji mu ne wulliitum waaye walastu bi xëyrikum maa leen jiite de waaye gënuma leen maa leen jiite waaye gënuma leen ok maa ngi leen di wax ni ku fi tooñ nit ndax néew doole man Aboubacar danaa jël sa néew doole googu tooñ la ba nga tollook moom mi am daraja te nga tooñ ko ma jox ko ak àqam bàyyi la nga wàccaat fi nga newoon waaye yéen ñi am daraja it maa ngi leen di wax ne ku fi tooñ ku néew doole ndax sa am daraja danaa la wàccee ba nga tollook moom ma jël àqam jox ko bàyyi la nga delluwaat fa nga woon lii mooy loi loi ka dëkk Malem Odar ak ki yeewoo palais de la république ñoo ci war a yem gis nga lii bu amul da ngeen di sonn ñun ñu sonn waaye avancement du am émergence du am dara du am ci réew mi laa dëkk nag bu bonee ma bon bu yàqoo ma yàqu waaye tant pis nañ waxante dëgg pour réew mi dox bu ngeen creuser nit ñi tamit du tax réew mi dox seen plan émergent baa ngi nii li ngeen ci bëgg amu leen ko parce que fi ni nit ñi normaluñ su nit ñi normaloon passé na fii bu yàgg lu ngeen mën a def nag te redressé wu leen nit ñi du ngeen am li ngeen bëgg du ngeen ko am man duma leen neexal xam ngeen ne maa yéen xam ngeen xamante ngeen xamante nañ on s'est mais du tere nag ma wax leen li liy defar loo xam ne bu ngeen ci jaaree ma am jàmm ngeen am jàmm parce que man maa leen gën a sonn man ñii ñëw ci man par jour du ñëw ci yéen par jour kon nag sikk bi ak coono yi fi mu nekk yëpp ruq-ruqaat yëpp xam naa ko su may wax lii rek bëgg lu defar a tax su fekkoon leneen laay toppatoo am naa leneen lu dul lii dëgg walla fen xam nga kii ñëw jox ma télévision ne ma boo gisoon terrain buy jar 100 million ma jënd ko Omar Diop a ngi nii léegi la ma envoyé photo yi ci man awma ay WhatsApp aw ma léegi nag ma envoyé photo yi ci sama soxna parce que daf ma woowaat bii fa mu nekk ca Italie woo ma ne ma dama gis sécurité bu la toppoon euh, kii nuñ koy waxee ci Louga ma ne ko waaw mu ne ma ñaata wokki tokki nga bëgg ma ne ko mu ne ma dinaa la jox wokki tokki boo xam ne benn bu nekk 5 kilomètres lay couvrir par benn léegi la ma ko yónnee WhatsApp ma xool ko mu ne ma dama bëgg sa communication gaaw mu ne ma lu ma xalaat ci àddina nag ne di ko soxla dinaa la ko jëndal te yonent bee tax te masumaa gis ma waxati ko ngeen xaniini صفى فوز وخلم فما أرجو علي من الأنين إلهي يا إلهي يا إلهي والله إلهي توبة حمل المنام مدن مجاوب سائل الأصنام مدن مجاوب سائل الأصنام def leen ni yumilukum wa dumtum Maodo ne fa muftaxirun bi mu Maodo ne yudaaf dufuufi Maodo ne wa aamun suma suma seeni loxo yi wa aamun suma suma seerun Maodo ne ataafi jigéen mag ak ndaw képp ku fi dikkoon jóg nga teral jaamu yàlla yi ku ormal jaamu yàlla yi nga man waalo waalo laa du ma wax lu ma xamul sama rak mooy imaamu ratibu jumaa bi ci 18 dañu war a defar morgue ci jumaa ji nga ñëw fa defa def conférence ñu wax loolu nga ni am naa cinq tonnes ciment dama doon war a tabax sama kër ca juma ja waaye bu ëllëgee ñëw leen ngeen jël ci cinq tonnes yi am na wala amul nga ne leen indi leen camion maa koy fay nga joxe 5 tonnes ya ñu indi camion nga fay ka oto ba ñëwoon indi nit ña képp ku fa teew keroog jox nga ko ñaari junni kon faaw yàlla fay la nit ku baax nga nit ku gore nga. xam naa ne depuis 70 Saint-Louis ba léegi changé woo benn couleur nga am sopp Alaaji Abdu bëgg ko foo tool di teral jàmm yàlla yi kon faaw ñu teral la maa ngi lay jéggalu ci dog bi ma la dog bëgguma ko woon. dafa am personnalité waxuma ne amu leen ko de. waaye comme mag la te am na ku le wolof dafa ne ku la mag ëpp lay sagar mu ne am na ñoo xam ne sax am na foo xam ne firi lañ xam ci moom xamuñ ci moom wuy gàmmu googa du ma tudd gàmmu ga li may wax ni yàgg na de ci année 70 yi la bañ toogee ci gàmmu gi ñoom ñoo ko daan wëy waaja amee gan bëgg a changé te ci tant bi la fas yéene changé xam nga loolu kenn du ko def waaye keroog làkk na fa tubaab yoo xam ne man xaw ma woon ne jàng na tubaab la ilaha illallah muhammad rasulullah daanaka woy yee yëpp ci tubaab la ko woy walla keroog keroog ma ne waaw ma ki ma dendal ma ne ko kii kan la mu ne ko kii doomu eh, surtout alaaji eh, kii Sow Dagana la alaaji Ablaye Sow Dagana ma ne ko ah kii nii rek la mën a mel ñii personnalité lañ fees ndax ndax jeex na foofu laa ko njëkk a gisee ma ne ah lii am na ci Sénégal kuñ osé ci tànt parce que boobu dañ ko bëggoon humilier te àddina fuñ la bëgg a humilier publiquement lankal ah yonent bi moo ne al mutakabbiru amaama mutakabbirin ibadatun nee na rëy rëylu ci kanamu kuy rëy rëylu ci sa kanam mu ne jaamu yàlla la farata la kon xalifa jërëjëf waaw moo ajuma ajuma si la nee na niroowul ak kenn baat ci réew mi nag kon soxna astu nee na ñu ngi koy nuyul monsieur et madame Bari ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Adja ayda kase mooy présidente Fawade Wele bu ASECNA di nuyu monsieur Adama jawara Njanor mu ngoog euh, bu Saint-Louis tabarakallahu di nuyu tamit monsieur Omar Diallo di professeur université ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di nuyu tamit euh, madame Rakisi moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu ñëpp gis nga pour tëj passage bi jeexal sax waxtaan wi ndax doy na sëkk xam nga lu ma bëgg man li ma bëgg donte mënuma ko am dinaa ko wax man su ma sañoon Sénégal ay dàq ci àddina bi ci tali yu normal ci dëkk bu leer ci dëkk bu rafet ci xol yu ànd ci xol yu nangu ci baax ci lëpp bu ma sañoon Sénégal ay jël premier billaahi wal kitaabi su dul dëgg yàlla bu ma fekkee ëllëg su dul dëgg yal naa dee tey ci guddi gi su ma sañoon Sénégal lay dàq ci àddina bi kuy copier dangay ñëw Sénégal lii Sénégal laa ko gisee lii Sénégal laa ko déggee waaye dëkk boo xam ne am na ña gën la Serigne Cheikh Tidiane si waxoon màkkaa ñu gën mu ne sëñ Mouni sëñ Mouniroo ko waxoon rahmatullah alayhi wa radi anhuma mu ne sëñ Mouniroo leen waxoon ni màkka dañoo ñu gën mag ñu njëkk waaye ñoo leen gën mag ñu mujj te mooy dëkk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam kenn mënu leen a gën waaye bu ñëwee alaaji Malick Serigne tuubaa ak ñaan ak ñoom kenn mënu leen gën te ñoo leen di gën la ñoom ba faw ndax ñoom bër bu set ñu gis leen ñuy gën a dellu ginnaaw ci wàllu diine ñun bër bu set ñu gis ñu ñuy gën a avancé ci wàllu diine dëkk wala du dëgg màkkaa nga ne leen ñu ngay réformer rek te la ñuy réformer dara jubóog Amérique rek tax ñu di ko réformer waaye du texte boo xam ne yax la ci alquran te ñun suñ mag ñi kenn mënu ko woon ci ñoom Serigne tuubaa lu tax ñu yóbbu ko ci ci àll bi juróom-ñaari at ah bañ lank ba tëdd ca naaj ne du fi amee Cheikh Omar Fouti lu tax mu nàmm jaaseem lank Seydul Xaaji Malik liñ doon bañ yépp mu def ko ci seeni bët allahu akbar lañ doon bañ mu samp zaw yi ca ndar mu jàkkaarloo gouvernance te mënuñ ci dara ñu di ko bañ ci ndakaaru mu samp ko fii ci cathédrale mu mu mu opposé woo palais de la République dëgg wala fen démb rek maa ngi koy nettali ci xadratul juma maam Abdul Hamid Kan la gouverneur Bolekar woo maa ngi photo bi wane naa ko démb ci xadara bi ñëpp toog xam nga Sénégal léegi booy wax dañ naan kii day safal rek ndax tàmm yu bon wallaay dañ naan day safal rek ndax tàmm lu bon dañoo tàmm lu bon ba kenn mënatu fee wax dëgg booy wax dëgg sax dañ naan oh il parle rek mais c'est pas vrai ma génne photo bi mën naa waat ne ku dul man du président Macky Sall du taq yu kan amoo photo bi président Macky Sall taq yu kan moo ko ko may ba mu demee Kaolack mu ne ko sarax ma ci dama ko bëgg a yóbbu eh, ni ñu koy waxee te archive nationale ñu bàyyi ko fa ndax lii war na ñépp teg ci bët maa ngi foto bi sama kër dama ko génnee ci xadara bi wan ko góor ak jigéen ne ko Mansour Gueye bii laa jox ne ko circulé ko waaye bu ko bu ma ko kenn fotol ci portable yéen ñi yore caméra yi fay leen seen kamera ndax ki ma ko jox loolu laa chartoon nag moom la ko waral dañ doon waxtaan mag moom ba yegg ci mu ne ma dinaa la jox photo bi waaye demal nga sotti ko nga indil ma nu la neexit sottee ko nga indil ma mu ne ma ndax lii man moom rek laa bëgg ku ma koy wax ma di ko dégg mag ñi rek lañu am man ku bëgg mag ñi bëgg naa la jox ma photo bi ma dem reproduire ko delloo ko fekk dañ doon waxtaan mam Abdul Hamid Kan ngeen baal ma rek su ma nee maam Abdou Hamid Kane ñëpp a ci bokk ku baax rek bokk nga ci biir. gouverneur bu France moo woo Seydul Hadj Malick ne ko dama bëgg guerre bi jeex ma bëggoon yow ak diw ak diw ca Maroc diw ca Algérie diw ca Égypte ngeen dem Makkatal Mukarram ñaan fa yàlla ndax guerre bi arrêté mooy 14 18 14 18. Seydul Xaaj Malik ne ko man de sama tànk dafa diis mënumaa dem waaye dinaa la yebalal sama bopp boppam mooy Abdou Hamid Kane gis nga sama bopp la ko wax parce que jàppoon na ne maam Abdou Hamid Kane mooy moom mooy moom parce que moo ko teg kaw lax mu wax ko maam Abdou Hamid Kane mu sol mbubbam ànd ak sukkay riij ndekete kañ doon wax ca Maroc sukkay riij la Cheikh sukkay riij moo taalif kasful xijaab taalif na 70 téere Cheikh sukkay riij yëpp a ngi ci internet bi nag tàppeel Cheikh Soukayri rek di nga gis téere yi mu taalif yëpp man léegi référence rek laay joxe ndax wóorul yàlla dogal bi su Soukayri duggee ci bato bi fekkante fa ak maam Abdou Hamid Kane ci histoire bu gudd rek bañ yeggee bay ñaan dañ ñaan tey ci ëllëg sa guerre bi jeex armée France yëpp recevoir leen nag waaye ñu ne mennum maam Abdou Hamid kan la ñuy takkal medaay ndax Seydul Xaaji Malik moo leen garanti woon loolu waaye boo gisee maam Abdou Hamid kan ci sàppe yi militaires yi généraux yépp a ngi rang mu wër sàppe yi ba mu jeex mu ñëw taxaw ñu di ko takkal médaille biñ ko wax wanee président de la république demal nga laaj ko boo gisee nga laaj ko li may wax xanaa kenn du fen ci rajo di fen ci ay militant am ñu toog ci la ne taq yu kan jox ma photo bi taq yu produire ko may ko mu ne ko lii preuve la bu ñëpp war a gis mu ne ma maa ngi ciy door a teg sama bët man président de la république jël photo bi yóbbu waaw mag ñu mel noonu nga am leen koo xam ne tubaab yi buñ jaaxlee sax ñëw ci ñun ñu régler problème yi te yow say problème bopp mënta regle te il ñu seetaat lu ko waral li ko waral du dara lu dul jikko yu ñaaw rek jikko yu ñaaw rek même politique bi boo duggee ci politique bi mën nga politique ba jeexal doo xas kenn waaye toog jël sa rajo di xas gor di ko waxal lu mu deful ndax politique ak bëgg a yéeg fi mu toog kenn boo fa toogee bu ñu la waxalee lu mel noonu nga jël borom dugal ci kaso bi ba du defar réew buñ bëggee réew mi njëkk ñu rey suñuy mag mag ñi ñépp a baax ñépp a baax amul benn mag mu nekk ci réew mi bu safaanoo amut kon na kenn ku nekk nga gëm na ko roy su ñëpp royee ñi gëm rek réew mi redressé wu tege ci yoon bu boobaa président du sonn ministre yi duñu sonn yéen député yi du ngeen sonn sëriñ si du ñu sonn ñun taalibe yi sax duñ sonnati te loolu laa bëgg ci réew mi nañ ci góor góorlu nag ku ne veye ñiy tagg yonent bi yéen sax jàppale na ci ñiy defar réew mi ci ngeen bokk moo tax xalifa jërëjëf tabaarakallaahu euh, gis nga yonent bi jikko rek la ko yàlla tagge walla wa innaka la ala xuluqin azimin dafa teg fa quraysh yi ak maam yi mu am yëpp tagg ko ci jikko te jikko yi épreuve la boo xam ne métti woon na ci moom waaye daf ca sonn te yépp nag mu ngi ci àddina bi tey yépp ñu ñu gaar tey ñu war nag lu ñu ci gaar ñu xool ci yonent bi salaay salaam boo gisee yàlla jël yonent bi mu jirim am ñaari weer ci biir yaayam baayam faatu yàlla ngi lay jàngal ne fexeel ba boo amee sa baay mu yar la ba nga màgg faatu ci sa kanam bu ko jooy ndax rasuululaay gisul baayam jeex na waaw aw nga am sa baay mu yar la ba nga màgg mu faatu ci sa kanam yàlla ne sant ma ndax rasulullaay mi gën sa baay gën la gën képp ku ma bind gisul baayam wala nga mu muñee ko loolu soo amee doom mu faatu yàlla ne xoolal rasulullaay benn doom bu góor laa ko saraxoon bésu tabaski la faatu ñu di ko ree te yow yaa ñaar sax kenn na dem te moom deseetul kenn ba yàlla jox ko inna aataynaka al kawsar fasali li rabbika wanhar inna sha'nika huwa al abtar yàlla ne ko kaay ñi naan benn bu góor dong nga dese woon dem na léegi sa ngir te dagg na ndax saw sant kenn dootu ko porte mooy laa daa ju masil la kan doon wax léegi suñ sant yi mu ne ko mu ne ko saw sant loolu la ko yéefar yi doon reewee benn sàññu càccoom ba dem na benn doom bu góor boobu la amoon maariyatul xibti moo ko juróon bésu tabaski la gaaju biñ julli jee bay ñibbisi fas la war fas wi daanu loos wi jiitu yàlla mën lu métti ah yonent bi li ko yàlla teg mu jàll dafa dafa jafe de fas wi xale bay jiitu loos wi jiitu fas wi dal ci koom ci saa si la génn àddina te boobu xam nga ku toll ci war fas nekk nga xale lu góor ah yonent bi ne pat yàlla ne jibril demal inna aataynaaka al kawsar jox naa la lu gën doom te loolaay sobe ñépp ëllëg muy kawsar mu ne ko fasalit li rabbika demal julli ji bu mu la tee julli ji sa doom ji faatu nii wan xari boo paree nga loj mooy nga rendi inna sha'niyaka ñii taxaw di la kokkali naan sa ngir te dagg na dootoo am ku porté te sant ñoom ñooñu inna sha'niyaka huwal abtar ñoom laa dagg seen ngir amul la ko yàlla waxoon am na abu lahab bi ku ko doon wax tabbat yada abi lahabin wàcc ci koom tey ku ñemee taxaw ci àddina bi ne may surtout abu lahab wax leen ma rek te wóor na ma ne ay système a ngi ci biir nit ñi ne mut ndax ñiy jëf-jëfi abu jahlin ñëpp ay sëtam lay bu ñu kenn sonal ñiy jëf-jëfi ni abu jahlin yëpp abu lahab yëpp sëtu abu lahab lañ dañoo noppi rek tey gis ngeen ci àddina bi kuy tiitaroo abu lahab <laughs> abi lahab mooy sama maam gis ngeen ñaata ni tey tiitaroo rasulullah mooy sama maam kon la ko yàlla waxoon am na ne ko muñal rek ñii di la kokkali naan sa ngirte dagg na ñoom dagg naa seen ngirte bés ni tey kenn dootu leen dégg ila yawmil qiyaamati yow nag sa tur du fay ba mukk الحسن طيبة منزل وكفى بها فقر الألوم المصطفى برضاها nekk sa biir néeg nag ruq mën a kan nga nga xoolaat ko waaye daal ko am li gën am ñi gën te gënoo kenn du ca ñoom ci yow la am li gën am ci gën am ñi gën te gënoo kenn ci yow la ku am li gën mooy kan sallallahu alayhi sallam ku am ñi gën ñooy ñan suñuy sang yii sëriñ si ci réew mi ko li gën mooy lan alquran ak diine lislaam kon soo gënatul kenn yow la waroon nañu fexe ba ku dul ñun ñoo lay gën ndax li islaam santaan yépp suñuy maam ak suñuy sëriñ def nañu ko ba def luñ leen santul ci yiw kon nag lillahi wa rasuli wa lakum fi rasulillahi uswatun xasana am nañu roy waay wu rafet moo di rasulullahi te suñuy sëriñ roy dañu rasulullahi ba jeex takk ñuy moom muy ñoom loolu la yàlla dogal ci ku mën a doon ci mag ñi sëñ Tuubaa yegg na ci benn xaadimul Mustafa te tuddeewu ko boppam rasulullahi moo ko ko tuddee nañ nañ ciy bàyyi xel moom tuddeewu ko boppam de rasulullahi moo ko ko tuddee sëriñ Cheikh Tidiane si dafa am bés ñu laaj ko ca Tiwaawan ne ko arab yi lu tax ñu sonn mu ne ñàkk kilifa amuñu kilifa ñu ne ko ak seen tur yu rëy yi mu ne ñoo ko tuddee seen bopp yàlla tuddeewu leen ko boobu la Hizbullah amoon doole Hizbullah yéen a koy fàttale ko tuddee seen bopp Hizbullah sëriñ Cheikh ne nattu bee wàcc ci seen kaw ndax xaaruñu yàlla tuddee leen ko ñoo ko tuddee seen bopp alaa inna hizballaahi humul xaalibuun wala balaa ngaa noot kenn say baqata génn ci biti ana hizbullah ku ko déggati te xaadimul Moustapha ngi fi ba tey mbir yi nekkul ci nga takkal say bopp ay drapeau ki gratte da liggéey ba borom mbir mi ne la yowa kon nañu soppiwaat fi may jeexale moo di fi ma yemoon daaw foofu laa koy yeggale rasulullahi li ko may li yépp mooy muñ muñ muñ muñ muñ muñ muñ muñ muñ muñ yéen ak may dégg Sénégal nag xol yépp baax man xaw ma lu muy baax man de looloo ma jaaxal Sénégal xol yépp ay bax te bax ñu ngi ko séenoo ci kaw walla wala sujeer waaye xol yoo xam ne yépp ay bax iñ iñ iñ boo demee ci sëriñ sa bëggante wuñ ngeen bal ma xaq yéen bëggul leen bokk leen ci boo demee ci sëriñ sa ci ñoom laay njëkkee bëggante wuñu maslaa rekk a fi ne waaye du dëgg man sama baat ni potote ku ma woo ma expliquer la ko de A à Z maslaa nii ci kaw waaye bëggante wuñ ci biir ku toog ci tant tagg sa morom boo wéetee jëw yala nañ ci yàlla musal du tax ñu mucc jëfee ko mooy tax ñu mucc man ku wax ma tontu la